mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média euh, ñu fas yéene dikk ak yéen ci édition spéciale bi wéyal ko sax la ñuy wax dikk ak yéen ci débat euh, muy waxtaan wu ñu fas yéene jagleel xew-xewu bis bi tey. Euh, xew-xew ay bés sax mën nañ ko wax ci événement yi fii am yépp euh, li ci gën a fës nag mooy euh, keneen ku ci ñàkk bakkanam ca Tëngéej muy benn xale bu ñaar fukki matul balu fital la ñu wax ni moom lañ ko dóor ci manifestation yu amoon foofa ca Tëngéej ba ci saa si ci la ñàkk bakkanam loolu la ñu fas yéene waxtaanee ak fii ñuy waxe nag fu bari ci Dakar fi mu nekk nii manifester ña nga fa soo génnee Dakar nga dem ca Kaolack noonu la fa demee. nga dem ca njaareem ñi ngi ñuy wax sax ni permanence su PDS ba fa nekk taal nañ ko euh, nga dem ca kees itam naka noonu manifestation yi ma nga fa muy Pikine muy euh, Géejawaay euh, fu ci nekk jàmmaarloo yi mi ngi dox ci diggante takk der yi ak manifester yi ci waxtu bi ñuy waxee ak yéen kon gannaaw bi ñu leen nuyoo ñu xamal leen ni débat bi ñu fas yéene amal tey ñu ngi ciy ànd ak le ministre d'État maître du Sall bokk ci fal bi Abdoulaye wadd nekk ca bopp ba Euh, di ci ànd ak El Hadj Momar Samb bokk ci benn Siggil Sénégal ba Moustapha Niass nekk ca bopp ba euh, ñu fare ñoom itam ci M23 euh, kon maa ngi lay nuyu El Hadj Momar Samb. El Hadj Amadou maa ngi lay nuyu. laaj bu njëkk bi El Hadj Momar Samb mooy xew-xew yi tey ba bakkan yi di rot mu tàng lool da ngeen koy revendiquer yéen waa M23. jërëjëf nuyu say téléspectateur nuyu mbokk bi xam ne ñoo bokk jataay bi tey ci TFM wax rek na tey. M23 ootewul woon manifestation. naam dëgg la. kon buñ ko jébbalee euh, taf tafal ko m du nekk loo xam ne mooy lii xam ne mooy dëggu ci lu wér te M23 euh, la mu def ca bopp ba mooy waxtaane jamono bi situation ni mu demee balaa ñoo def beneen jéego foog ñu waxtaane xew-xew yi tey ñëpp xam nañ ne ñi woote woon kilifa tijaan yi la fële ca zawiya ba mhm. kon la ca topp lépp. li ko jiitu M23 woote la ko jiitu moom M23 lu ci lu wér. xew dañ koy revendiquer. lu ci lu wér c'est-à-dire que euh, li ñu woote boobu ba léegi mooy dem manifester ji place de l'indépendance mhm. te def ko tamit ci anam ni xam ne moom la ñu ko yoon mayee ñuy yëkkati kayit bi xam ne walla euh, bataaxal bi xam ne moom la ñu war a jébbal kilifa yi. yëgal leen yëglu ne leen dañu bëgg a doxal suñu manifester ci place bi wala ci place ba te boobu ba léegi ñu ngi koy ñaan di ko sàkk waaye dafa mel ni kilifa gi jiite euh, karaange réew mi biir réew mi moom bëggul dara ñu manifester ci loolu ba sax ci loolu xam nga euh, jalgati na li ko yoon may ba Sénat am na euh, kàddu gu mu ci yëkkati baatam wax ne loolu àndul ak sañ-sañ yi xam ne moom lañ ko yoon teg kon nag li ñu mën a wax rek mooy li xew tey euh, naxarlu ko rek euh, ñaawlu ko euh, am ci mbetteel bu wér ndax am na lu ma gis tey loo xam ne wax dëgg yàlla man yaakaaruma woon ne dina mën a am ndax nit ñi liir benn nit candidat à la présidentielle di ko jéem a difi takkadeer bi ñëw tiim leen tiirewul ca kaw de amuñu arme yaruñu xeer yaruñu dara mais mu sañ antan diir leen bu mu diir mu dóor bal bi seen kaw loolu am na bëkk am na ku fa gaañu muy Alpha Wali Diallo euh, gis nañ tamit leneen euh, image yi ñu wane euh, wane ne ni alkaati bi doon sànnee grenade lacrymogène bi ci biir zawiya bi yooyu ay ñaaw ñaawteef la yoo xamee ne lu ñuy naxarlu la ci fa gën a sori ci sunu xol. ndax am ngeen ci responsabilité. mënuñu wax ni am nañ ci responsabilité bu fekkee ne li xew du coobare ñi xam ne ñooy manifester du coobare ñi xam ne ñu yëkkati seen baat ne dañu bëgg a manifester du coobare ñi xam ne dañu yónnee bataaxal yëglu ak ni leen ko yoon santaane kon mhm. li ma gis mooy tafar gi ak doole ji mhm. jógewal ci ñun fitna dem ca ñële waaye mu ngi jógee ci takk der yi ñëw ci ñun te takk der yi ci leen yebal mhm. ñoo xam nañu ko mooy ministre Ousmane Ngom ànd ceex ci gouvernement ñu dal suñu kaw mhm. dal ci kaw njaboot gi loolu euh, lu mat a naxarlu la gis yaa ngi koy gis ni boo gisee image loolu la leewan léegi euh, El Hadj nga baal ma dinaa dellu si ci yow euh, El Hadj Amadou Sall responsabilité bi dégg nga <coughs> nga baal ma ni mu ko dégagé ndax ni mu ko dégagé pousse leen ko yey na la yow waaw maa ngi lay euh, nuyu Pape Ngagne nuyu euh, Samb ak euh, ñi nga xam ne mooy sa téléspectateur yi ñuy déglu may am ñaari naqar naqar am tiis ndaxte lu xew rek te bakkan rot ci dañ koy naqarlu ndax li gën a rafet ci li yàlla bind nit la ak bakkan kon loolu su rotee dañuy naqarlu la parce que jëfi defaru yàlla la ñu yàq muy première naqaru ñaareelu naqar bi mooy li ñuy jël lépp tey li xew bugg ko sëf sëriñu tijaan yi mais sëriñu tijaan yi ñoo woote wax dëgg ne xaalis sëriñu tijaan yi lu ñu woote wax nañ ko ñoom ci seen bopp du lu ñu woote démb du lu ñu woote bërki démb lu ñu woote lu yàgg la te ci am fàttaliku fàttaliku ma fu ñu wootee fii ci zawiya ba ñu fa teew ñi euh, bokk ci M23 teew fa loolu mosuma ko fàttali li may fàttaliku toujours mooy ci zow ba suñ fay woote taalibe ya fay daje def fa lañ fay def ñaan fa lañ fay ñaan suñ fa paree kenn ku nekk dem waaye ma suma fàttaliku ci zow ba ñu woote. M23 da ngeen bëgg a génne ci taalibe yi. déedéet génnewuma leen ci génnewuma leen ci. waaye waaye waaye waaye génnewuma ci kenn waaye nag. Mhm. loo ne guleet nag mu jaaxal la lu toll noonu euh, guleet la euh, kon loolu aussi dinaa ko naqarlu parce que buñ ko sëf sëriñ si mhm. te buñ ko sëf sëriñu tijaan wax dëgg ne xel mën leen ci génne seen yoon nekku ci li ci am rek lenn la mooy réew mi suñu réew. ci responsabilité bi mu leen bëmax. waaw responsabilité bu mu ñu bëmax bi responsabilité pour man lu simple la. ci bu autorisation bi amoon manifestation bi jaar ci yoon. lii waaw xam nga euh, opposition ay ay bés a ngi nii ñuy manifester li ci ëpp ci la ñu manifester ñu ngi ko def place de l'Obélisque saa yi ñu ko fa defee autorisé nañ leen amul benn bañ fa def rek boo xam tere nañ leen ko. tere bi mën na jiitu déedéet. mais déedéet déedéet gàntal bi mën na jiitu waaye euh, ñu mujj ngañ mhm. xam nga man dama sopp suñuy wax dañuy wax lu ñu leer. Mhm. amul benn yoon bu ñu ñëw à part benn yoon buñ ko tere Union européenne ndox ci diggante bi ñu autorisé ko waaye ci des yépp kenn mosul dégg nañ ko tere dañuy wax rek. tere nañ ko tere nañ ko bu ci mujj gi ñu ne waaye bàyyi nañu ñu def kon baax dégg nga la mhm. am lépp amul benn bu ñu tere lépp dañ ko autorisé police ñëw encadré leen ñu seetlu ne suñ suñu manifester ba pare day am ñu jóg ne nañu dox dem génne Ablaye Wade këram yéen journaliste yéen ñu koy jottali ne li ci ëpp dañ naan dañuy def assaut final dañuy dem jàpp Ablaye Wade yeew ko génnee ko fa mu nekk li ci ëpp fitna fa lay jógee kon fitna bi jógewul ci tere bi parce que suñu leen autorisé fitna am suñu leen tere fitna am mhm. donc fitna mi ngi am su dee ñoom ñoo organisé suñu organisé wul fitna du am suñu organisé fitna am ñu autorisé ko ak ñu bañ ko autorisé kon su dee dañuy wax euh, te yàlla rek tax ñu wax dañ naan fitna gi mi ngi am su dee opposition mi ngi organisé parce que su dee mi ngi organiser ne dañuy marche dem palais parce que dañu nekk campagne électorale campagne électorale mooy kenn ku ci nekk jóg wax ak sénégalais yi wane yow yaay kan. war ko mën a def fu la neex waaw war ko mën war ko mën def fu la neex war ko mën def fu la waaye. Mhm. Euh, bul fàtte nag euh, fanweeri at a ngi nii bi ma nekkee avocat bi ma prêté serment fu la neex nga ko mën a def mën nga ne maa ngi koy def fii waaye foo ko mënti defit muy période électoral ak mu bañ nekk période électorale autorité administrative mën na la ko tere su nga tey ñëpp xam nañ ne que am na benn parti ci réew mi soldat yaa nga fa presque nekk ci opération presque guerre doo fekk fu ay soldat di xeexee nga ni foofu seen kanam ngay def meeting soo ko defee ñu tereel ko kon ce ne pas parce que ker élection la ñu nekk. mais loolu sax kenn xalaatu ko xanaa dama lay wax rek déedéet dama lay wax rek ne mm-hmm. que euh, mën nañ ko tere. Mm-hmm. yoon may na. mu di ci biir élection campagne ak mu bañ nekk ci campagne yoon may na autorité administration su jàppee ne li ñuy bëgg a def dina indi euh, fitna ci réew mi ñu tere ko kon tere gi euh, du loolu moo ci am du loolu moo ci am solo li ci am solo rek pour man lenn la mooy euh, réew mi tey fitna ñu ngi fi am tension du crise tension la tension su amee dañuy seet la mu mën a yàq. lan nga bëgg a wax ci du crise tension la. par tension xam nga gis nañu àdduna bi crise yi xam nañu nu crise mel xam nañu nu crise di doxalee xam nañu lu tension di am yàlla dafa baaxee Sénégal que ñun dafa am lu ñu xam ak lu ñu xamul yaa ngi koy gis yéen ñu ngi koy wan manifester yëpp nit ñaa ngi ci mbedd mi ñu ngi xeex ak alkaati di leen sànni ay xeer. alkaati di leen sànni lacrymogène yenn saa yi ñu jël bal kaw su tiré leen ko ñuy lakk pneu ak lakk euh, taabalu euh, jaaykat yi fu ñu toll ni foofu lañ ci toll. yokk ci alkaati yi léeg-léeg ñu dóor ci bal nit bu dee. waa léeg-léeg ñu jël xeer jàpp ci alkaati yenn yére ñu ko wan jël jël brique te alkaati dóor ko ci bopp bi bu mu xañee bopp bi booy bi bopp bi nooy képp loolu it gis nañ ko gis gis nga. mais ñoom ñëpp doomu Sénégal lañ may. waaw suñu toll nii dama lay wax rek dama lay wax rek. xaj ak seen fu ñu toll nii man xajewuma ak seen. <coughs> dama bëgg wax ne. Mhm. Euh, dama la ko wax ca njëlbeen ne la lu yàlla bind yëpp bakkan ci gën a foor. kon bakkan grotte rek bakkan grotte la muy bakkanu alkaati muy bakkanu xale xale yi nga xam seen bakkan rot na man de mën naa wax ne ñoom ñëpp samay moroom doom lañu parce que amul kenn koo xam ne ne kii awma doom ju toll ni yow kon. suñu ay doom alkaati ba nga xam bakkanam fàtt na ci sama moroom doom la te sénégalais la kon bakkan yépp la ñuy yemale mhm. bakkan yépp la ñuy naqarlu mhm. waaye it suñuy fàttali dañuy fàttali rek li xew mais am na ay xale yu ci seen bakkan rot am na ay alkaati yu ci seen bakkan rot mhm. ñu naqarlu yépp parce que bakken war a cor dëgg la te ñuy wax ne am na loo xam ne bi nit ñi suñu koy def mën nañ ko def manifester sax mën nga ko def mën nga protester mën nga xeex mën nga xuloo te ñu bañ a àgg fa ñuy bakk rotale rotale bakk. d'accord loolu moo ci amoon solo. te ñu koy naqalu di ñaan rek di ñaan rek ñépp mm-hmm. que lépp luñ ciy defit ñu mm-hmm. ànd ci ak dal. d'accord ànd ci ak xel. d'accord ànd ci ak euh, ak ak ak ak euh, sabablu. d'accord yoon woo xam ne ne bi fu ñu ko defee. kenn ku ci nekk ci ñun mm-hmm. li nga bëgg di ko am te ni d'accord El Hadj Momar Samb gannaaw li xew ci euh, Zewis Idage Malick Sy tey dégg nañ le ministre de l'intérieur maître Ousmane Ngom euh, ci RTS mu def déclaration jéggulu baalu àq ci li am xamal leen ni gënalu ko euh, yéex na wala fi mu yem doy na la wala lan nga gënoon xaar ci ay kàddoom le ministre de l'intérieur li ma doon xaar moom mu tekki ndomb tànkam waaye xëy na moom na mu mel ah fa mu bokk amuñu boobu tollu tollu ci nite ba mën a yegg foofu ci kaw seen kilifa Ablaye Wade dafa wax barkaati démb ne ah juróomi bakkan di fi day moom ngelaw la rekk péex la du sax ngelaw péex dañuy wax brise de mer peesu géej gi rax ak tefes gi la loolu kàddula goo xam ne mën nga ci natt tolluwaayu Abdoulaye wàdd ak ñi mu àndal mën nga ci natt seen ak mat ak matadi ci kilifteefu réew ma yokk ne diñ ci mën a natt tollu tollu ci kilif kilifteefu njaboot ndax lu doon lu kilifam réew président la république ah ku mu neex ku mu neexul ku ko bëgg ku ko bañ moo njaboote ñépp ñépp doon ay doomam bu benn bakken waddee sax war nga ko naxarlu waaye juróomi bakken wadde ñu laaj la nga ne ah peexum géej la rek defe naa ne kaddu googu rek firi ndax du yéen ñi ko yéene ouragan moo tax mu ne peex la. xam nga dafa am ñaar ci àdduna kilifa wuute na ak doomu aadama bu nekk ci citoyen sax yemu leen tollu tollu kilifa dafa am fu muy tollu mu ngi mel ni nga yor sa njaboot di tonton tax sa doom mu wax la dara nga gën ko naxaral wala mu def la loolu metti nga gën a ko mettital boobu dese ngaa nekk njaboot foofu lay woo nit pour ñu gis ne lii am ci Sénégal jikko la moo ko lal gisuñu réew gisuñu àdduna ak gisuñu politik moo ko lal gisuñu doomu aadama li fi maître wax boo ko déggee da nga naa ala kuliyaalin lu war a mën a nekk la ne nit bakkanam for la foraay boo xam ne ne bu ci rot woon koo naxarale ñu ciy profité di jaal ñii xam ne ñoo ñàkk seen bakk mhm. di feddali suñu njaal njabootu du Diop ak ñeneen ñëpp ñëpp bàyyuma kenn mhm. di def suñu njaal ñi xam ne tey kii xam ne moo ci ñàkk bakkan mhm. pour wax rek ne loolu nag jikko boobu politique la aussi politique de violence politiku fitna politiko tafar d'accord boo xam ne ab lay Abdoulaye Wade noonu lay yore réew mi. d'accord te li ma bëgg ñun ñu xam ko Pape Ngagne mooy yore na réew. violence fitna. du rek jël sax bal tiire ci kaw nit. Mhm. waaye mooy ñu dal ci kaw ay journalistes ñu xam ne kii la. Mhm. yow kilifa gi njaboota ñëpp nga iir ko. ba dara du ko laal. d'accord waaw. ma bàyyi jërëjëf waaw waaw mais xam naa du fi du fi xaj quoi nga baal ah, euh, da am benn exemple jaale Mamadou Diop ca Mbour du moom rek moo ci ñàkk bakkanam Mara Diagne ca Kaolack la ñàkkee bakkanam moom tam suñu correspondant bi nekk Kaolack Benjamin Diagne dafa nekk ci téléphone bi dañ koy jël rek mu wax ñu situation bi ca Kaolack ñu daal di ñëwaat ci débat bi ma jox kàddu gi élage am bu sàll Benjamin bu fekkee yaa ngi ci téléphone bi Benjamin Diagne waaw waa Pape Ngagne euh, Ndiaye euh, xam ngeen dafa tàng jur jur ndax xale yi dañoo génnoon mais léegi li ci bees ci mbir mi mooy euh, jamono yi may wax ak yow euh, meeting euh, Macky Sall mooy am waaye xale yi daal dañoo fas ni yàqu ko daal sa yàq nañ ko parce que 17 heures lañ ko fi doon xaar ci Kaolack moom mu defoon ay tournée ci biir région de Kaolack ba fi mu toll nii jamono ji sax may wax ak yow fi mu toll nii jàmmaarloo ak ñi nga xam ne kon ñu ne garde corps ak ay garde yi nga xam ne wala ak waa Yanamar ba ay jaas jamono bi nga xam yow fi ñu yi nii tey gars yi jaas lañu mujj génn te ñi yore ay euh, gourdin ñi yore ay xeer yu ngand ngand ngand parce que xale yi dañu ne par la force meeting bi du fi amee euh, tas ko ci nañu jëm. fi ñu toll nii xale yi dañ doon wër-wërloo loo yi police nga xam ne sax euh, jàmmaarloo bi bu njëkk ñoom la woon ak manifestant yi ñoom dañoo mujj reculer euh, jëm ne la si ginnaaw ñoom it euh, di seetaan waaye fi ñu toll nii tey xale yi ñoom la ak léegi ñi nga xam ne kon ñoom ñooy garde corps yu mat yi tàll fi ñu toll nii nag di meeting baa ngi wéy waaye fi ñu toll nii tey ñu bëri ñu nekkoon ci meeting bi dañoo mujj daw ndaxte ñii nekkoon fii dañ ne kenn du ko fi seetaan du Euh, fi mu toll nii nag meeting baa ngi woy waaye comme ni ma la ko waxee nii nit ñi taxu ñu ko bëri noonu noonu noonu noonu loolu parce que xale yi mais Macky Sall ci meeting bi foofu wala instant bii moom moo ngi ci meeting bi instant bii moo ngi ci meeting am na ñuy wax waaye moom jëlagul kàddu wax waaye fi mu toll tey mën nañu wax ne public bi dafa yaraax ndax xale yi jóor xeer lañ doon daf di sànni ne meeting mu xamee Macky Sall nag moom euh, ci ma ko kawoon léegi nii rek ci ay simili euh, yëkkati woon na ay kàddu ne na parce que yëgoon na ne euh, gars yi ngi woon ci buntu meeting bi di bëgg fas yéene ko yàq bay taali ay pono euh, yemaluñu ko sax meeting mais kàlloo gi yëpp daanaka dañ ko taal waaye moom dafa ne na gaa yi bàyyi sànni xeer yi nañu xam ne ñoom ñooy ay du ñuy adversaire ñoom ñoo bokk liggéey bi Ablaye Wade lañ ci bëgg a jëlee waaye nañu vingt six soreetul nañu dem ci carte yi nañ dem ci carte yi loo message boobu la joxe euh, laata muy teew fii ci Kaolack su ko nee nag jëlagul carte nag di wax waaye fi ñu toll nii comme waxee nii ñi nga xam ne kay ñu ne. Benjamin waaw waaw waaye yana maar yi yàq euh, meeting wu Macky Sall bi yan propos la ñu avancé tax ñu bëgg ko yàq li muy meeting foofu moo leen. naqari wala euh, dañu bëggul lan la. waaw ñoom lañ ne mbir mi wàcc la ci terrain bi. voilà voilà gis nga fi toll euh, waaw ñoom ñooy fuuf noonu di dem garde corps yi. Mhm. garde corps Macky Sall ñoo ngi di raam nank di dem di fekk ci xale yi ñoom ñoo ngi noonu di dem ñoo ñoo ngi di dam yi ñuy yor yi jaar ñi yor yi ay xeet fi ñu toll nii. donc Benjamin. waaw waaw su ma la déggee euh, yanamar dañ koy invité ci terrain bi pàcc ay meeting. voilà ñoom ñoo ci terrain la jox neneen du jamono yi wax merci beaucoup merci merci merci euh, Benjamin dinañ la jotaat euh, nga wax ñu évolution loolu xew tey ca Kaolack El Hadj Amadou Sall man ci kàddu yi El Hadj Momar Samb yëkkati rek laala yi delloo. wax na seenu matadi yéen waa PDS ak kàggam fa nekk doore ci seen kilifa gis ni matu leen matu ko la mu doon xaar ci kee di maître Ousmane Ngom mu dégg ko ci moom. xam nga man yoolu duma ci sama tontu daf ci simple parce que man duma xulowuma xeexuma sénégalais yi nga xam ne ni bi ñoom ñoo fal Ablaye Wade ci lu ñoom ñooy xool ndegam mat na wala matadina waaye ñun ñi ànd ak moom de xam nañ ne mat na mat na jiit mat na kilifa ba nga def liggéey bañ ko fay def gis nga euh, man dama bëgg rek su dee dañu ay démocrate lañu nangu yoonu démocratie yoonu démocratie mooy lan mooy jamono day jot kenn ku ci nekk ñun ci politicien fëgg sa dënn ne maanaam kenn ku ci nekk taxaw ne damay waxal ci turu askan bi ndax jàpp naa ne lii la askan bi bëgg lee la askan bi bëgg la askan bi bëgg kooku gor su nekk sañ na ko waaye am na loo xam ne kenn sañatu ko dina am jamono dañuy am dal ak mot gu toll ni danaan tekk jël kàddu gi delloo ko boromam parce que borom kàddu gi du góor du jigéen borom kàdd gi du yow du man du Momar Samb du keneen. askan wi borom kàdd gi askan wi la ñoo mm-hmm. ko yore. askan wi askan wi fii ak dimaas gii di ñëw ñoom ñooy wax ku leen doy su askan wi ne Moustapha Niass moo leen doy ala kulli al Moustapha Niass lay doon su askan wi ne Ablaye Wade moo leen di doy ak ku mu neex ak ku mu naqari ala kulli al Ablaye Wade lay doon loolu mooy démocratie démocratie mooy tànn sa bu la neex ñu may fukki millions ngi ak ñaar ci sénégalais. ni nga xam ci seen biir ñoom ñoo am seen carte électeur te ñoom ñooy joxe nguur gi ñoom ñooy joxe leng yi ñu xool ku leen doy ak ku leen neex ñu def ko waaye am réew yore ko du ak même fa wuddiñ di sabablu pour jot ko du ŋàññ lépp lépp loo xam ne ne bi bëgguloo ko rek li li américain di wax bali papit mooy xale buy xaaju ne man li ma bëgg dong laay am leneen lu mu mënti doon te bokkul ak lu mu bëgg du ma ko nangu non seulement du ma ko nangu dama kaa yàq mooy tey waa opposition bi yëpp nangu nañu ne Sénat puisque Sénat wax nañu ne que ñoom mën nañu manifester kon li Sénat wax dëgg la waaye barki démb bi Sénat ñëwee taxaw ne amul leen droit def li ngeen def dañ ne Sénat dafa ànd ak gi bis bu ñu demee ci conseil constitutionnel Moustapha Niass déposé candidature am. Mhm. conseil constitutionnel ne ko sa candidature baax na dafa ne gàcce ngaalaama conseil constitutionnel li ngeen def mooy yoon. bi conseil constitutionnel ne kat candidature Abdoulaye Wade baax na ñu ne ko mukk ngañ ko ne déet waru leen ko mën a baaxal gis nga démocratie lu doxalee noonu bu li ma bëgg rek dañuy nangu ne yoon dafa am dafa am ay règles. Mhm. fa ñuy jaar ñun ñu jaaree la ñu fa. ku ñu ñëw ñu teg la ci yoon nga nangu nañ la fa tegee soo koy xeexit mhm. parce que mën nga xeex yoon mën nga werante ak yoon mais lu ci nekk rek dafa am nañ koy defee mais gisoo fi lu jar maître Ousmane Ngom di démissionné yow gisuma ko fi parce que Ousmane euh, maître Ousmane Ngom euh, ñëw na dafa dafa dafa assumé li nga xam ne bi moom ay nitam ñoo ko def ay alkaati la yu ñëw kenn ci ñoom jël grenade di ko sànni grenade bu dugg ci biir jàkk ñu ne dañu profané jàkk dëgg la waruñu dugal grenade biir jàkk waaye yéen ñu war na i image ñëpp ñu koy gis ñu jëkk dugg ci jàkk ji saa yi daal lañ fa duggee man de mi nga xam ne man jullit laa taalibe laa te taalibe tiijaan laa sëriñ du mooy sama sëriñ ma di ko wax ci lu ma loo xam dama koy assumé sama xel sama fit sama jullite ak ni ma bokkee ci ci ci ci ci ci yàlla ci ci ci yoonu siraatal mustaqima yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mayuma may dugg jàkk ak sama dàll. jàkk dañu fa dugg ñëpp ci ëpp ay daal lañ fa duggee. mais yaakaar nga kuy sauver sa bopp tàng tàng say daal ma kale ma ma daaneel waaw déedéet da nga ay alkaat yi dàq ay grenade ko doon dama ko doon ñambaas dama ko doon brossé mais nag dama ko doon brossé ah, dama mhm. kenn ci ñoom moo ko def mhm. Ousmane Ngom dem jàkk ja ma nga tudd zawiya Alaaji Malik ba mu demee loolu am kër njabootu Alaaji Malik la dem toog ak ñoom wax ak ñoom d'abord laata muy def dara kenn xamul luñ ñu wax ak lam fa def parce que kilifa dafa am te ndaw luy dox kilifteef dañ koy dox ci yoon. d'accord parce que waa kër njabootu Alaaji Malik la dem njabootu Alaaji Malik mooy njabootam. ji mu ji mu njaboote ñi mu njaboote ay njabootam la ñu sant si ak njabootam ñu nekk ci tarixam te njaboot ñooñu le dafa am ñu leen jiitu ñu leen jiital nekk fi mu dem wax ñoom ba pare mu dellu si taxaw ca rajo ba jéggalu la muy def parce que njéggal li duma ma ma sàmbalee jéggalu du ma sàmbalee jéggalu day jéggalu jullit yi jullitu Sénégal yépp li nga xam moom def ko ay nit ñoo xam ci kilifteefam la ñu nekk ñoo ko def mu dem jéggalu nag ca ca jàkk ja ca ka moom jàkk ja mm-hmm. ca ka tabax jàkk ja jéggalu ci njabootam ak ñi ko fi teewal mm-hmm. jàpp naa ne loolu su ko defee def na la mu la mu waroon a def. d'accord te loolu lañ ci loolu rek lañ ci nangu. loolu lañ jëlee loolu mi ngi ko def euh, tey dibéer maanaam dimanche alors que événement bi mi ngi amoon vendredi euh, xëy na yéex na yéexul dinaa si dellu siwaat ak yow ki ne dem dafa nekk ak cortège Ousmane Tanor Dieng ci Kaolack aussi ñoom dañ fa am ay jafe-jafe. Euh, ñu ànd ak euh, Fatou Kiné Deme mu wax ñu euh, jafe-jafe lan la bu ko defee ñu àndaat ak El Hadj Momar Samb Fatou Kiné bu fekkee yaa ngi en ligne. waaw maa ngi en ligne Abdoulaye. waaw Fatou Kiné lan nga ñu mun wax foofu ci Kaolack ak cortège Ousmane Tanor Dieng. waaw effectivement jotaguñu woon sax quitté Kaolack parce que sànq dañoo doon def visite muy kër Serigne Niassène yi fi nekk jot nañ fi dem waaye li ñu leen